Les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance de vous des

waxtaanee xam nga donc kii di Souleymane Diawara mi comparé diggante Sadio Kaiser magnifique man ak El Hadj Diouf kan moo dàq football euh, ci histoire u Sénégal yëpp indi na ci ay leeral wax ci xalaatam ñu fas leen koy wasaare. laata boobu d'abord gars lii mooy troisième maillot bu Manchester City saison prochaine ah donc les Citizens seen maillot baa ngi nii ah maillot bu rafet la macha allah donc bii mooy troisième maillot bu Manchester City saison 2023 2024 wax également ci nga xam ne Aurelio De Laurentiis <laughs> de Laurentiis gars yi moom daal dafa yokk njëgu billet yi foofu noonu ba pare jot ak yenn supporters ba tax na bu Naples daal di koy ordonné ne ko yow par force par la force booy dox il faut nga am ñoo xam ñoo lay escorté ba sa kër loolu daal. doroentisme wul kenn moom ne li mu def kenn mu wax du ko def ki nga xam nag également mooy Karim Ben euh, plutôt ah, di wax Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé nag euh, moom ba gars yi nee nañ ah fii ak euh, match bi ñëw la match bi stop il sera opérationnel mën na commencer waat reprendre entraînement normalement ak waa FC Barcelone Manchester United Martinez gars yi forfait jusqu'à la fin de la saison le défenseur argentin gars yi gis ngeen ko ah, donc moom daal tànk bi moo moo damm tàng moo dam donc euh, wetu euh, donc moom daal fi ni il est forfait mais nag euh, si il n'est pas le seul parce que Varane aussi il est il est blessé ki nga xam ne aussi nag mooy Rashford il est blessé loolu nag fi mu ne ni gars yi tax na gars yi <laughs> Maguire moo fi sës de marche waa Manchester Maguire moo fi sës de ngeen bëgg ko ngeen bañ ko ki nga xam ne aussi nag mooy donc i di Gavi wax ko waa man waa Manchester euh, plutôt euh, ngi fi ñoom daal fi ne nii euh, seen gët ñu ngi ko teg ci booy bi di Gavi Barça nag ñoom ñu ngi jéem a fexe ba réinscrire booy bi sinon nag Gavi il pourra partir librement et te Chelsea moom pare na pour daal di koy woo ki nga xam ne nag mooy donc Ilkay Gundogan agent am nag nee na sincèrement li may dégg ñu naan ñun am nañ accord ak waa Barça et ma jaaxal parce que ñun ba léegi amuñu accord ak benn benn benn équipe concrètement loolu Ikay Gundogan daal di wax Victor Osimhen le phénomène du football italien moom it ah, Milan AC ñoom pare nañ. ak aussi du ah, Milan AC rek mais surtout aussi Bayern de ah, pare nañ pour daal di koy recruter Milan mi ngi ci pare yi ngi fi et tout mais moom daal le joueur de Napoli daal fi ne nii aussi euh, Bayern daal moom lañ ne moo gën a jege pour daal di koy jënd ak Chelsea Chelsea bi nga xam ne ñoom tamit pare nañ di am transfert record ci Osimhen kii nag di Nicolo Zaniolo le joueur ancien joueur de l'AS Rome nekk ca Galatasaray moom nag actuellement il est en moom moom fa ne ba léegi il a déjà marqué trois buts donc le collectif des ultras euh, sénégalais donc gars yi ñoom def nañ déclaration nag ni ñoom dañuy exiger ñu leeral mbir mi jëm si li nga xam ne mooy donc liñ naan kàddu yu ñagas yi Leroy Sané teg ci Sadio Kaiser magnifiquement ne bu amee bu amul na ko boo benn leeral jëm si nag ki nga xam mooy donc Edouard Ndiol ko moom it dogoore mel ni balaa ngeen di information boobu noonu ah, gars yi dañuy wax jamono ji ne non ko bëgg remplacer ak All Black et All Black All Black na du côté donc de l'Atlético Madrid ba 2027 ah, donc pour l'instant actuellement il pourrait même euh, démarrer le match prochain parce que Kylian Lampard il va lui donner du temps de jeu kii nag de Souleymane Diawara gars yi laaj nañ ko na ko diggante El Hadji Ousseynou Diouf ak Sadio Kay Zamalek Mané euh, Sénégal mu ne El Hadj Ousseynou Diouf bu dee wàllum football bu rafet wàllum wàllum spectacle nee benn la fi ah donc nee na carrément bu dee côté boobu moom El Hadj li mu def kat def ko en plus jël na li nga xam ne mooy donc ñaari coupe d' Afrique El Hadj Diouf lu ko xam ne boo joon ñëw terrain da nga koy da nga koy seetaan da ngay kontaan nee na loolu moom El Hadj Diouf moom mën Sadio Kaiser magnifique Mané mais aussi nee na bu fekkee ne dañuy xool ci wàllum palmarès maanaam bu xoolee. ku nekk lan nga gagné comme trophée fan nga jaar et tout et donc euh, nee na kii di Sadio Kay Sadio Mané fi maanaam mooy nekk meilleur joueur sénégalais de l'histoire parce que Sadio Mané en matière de statistique boo gisee moo ëpp kii di El Hadj Ousseynou Diouf statistique en matière de palmarès moo ëpp foofu kii di El Hadj Ousseynou Diouf palmarès donc aujourd'hui bu dee cadre boobu la moom Souleymane Diawara nee na donc ñoom ñaar ay ñoo dàq football ci histoire du Sénégal mais Sadio Mané lay jox li nga xam ne nag mooy donc lii di euh, statut de meilleur joueur sénégalais de l'histoire du football donc loolu daal la daal di wax ki nga xam ne donc Souleymane Diawara gars les informations que je voulais vous donner ah like woy leen di surtout bës leen ci lien boobu noonu pour dem abonné ci chaîne Bamba Show gars yi di jégool nag foofu on avance ensemble dans la magie de eSport TV